Jangana amna diplôme euh, bac euh, dem université daf département anglais certificat de maîtrise ensuite def concours CESTI euh, def deux ans de formation un am diplôme et puis une formation bi au CESTI en médias et communication master 2 mémoire bi moma de c'est vrai que defaguma ko entre temps bi may def master bi maa ngi doon aussi ci benn radio pendant deux ans et quelques euh, mois quoi mais depuis ma quitté Fofu, maa ngi déposé mais jusqu'à présent ama amaatuma ligue. après Madame Tokhar, il y yenn saa yi qui def suivi euh, mais bon jusqu'à présent amaguma un retour favorable. waaw sama profil mooy comme un handicap la jàng euh, góorgóorlu na jàng comme ñëpp. maa ngi doon jàng di fay sama moyen bopp di def ay cours particulier di fayal sama boppu ba am BFM maanaam am naa certificat BFM ba bac léegi nag bu année en 2016 bu ma déggee ne Macky Sall organisé organisé na bac baccalauréat bi léegi dañ ko reconnaître euh, ci ci voilà ci ci Sénégal ma dem defi ma yàlla def nag ma am ma bokk ci ñi am léegi à d'office laa amee dégg nga nag boobu ba léegi ñom orienté nañ ma ci université Dakar Bourguiba ma ngi doon suivre fofu langue et affaires mooy langue étrangère appliquée def naa fa def naa fa 2 ans bon def naa fa 2 ans euh, et demi wa ci la ci lañ amé problème fay diggante état bi ak euh, école privée ci lañ ci lañ bo léegi na ci la man ma bay ma dellu ci def ay cours particulier di waaw di ci dund dal musuma am liguey

Ah, di def ay cours pré cours particulier di jàngale eh, arab jàngale alquran loolu laay yëngu di ci dund su ma sañoon euh, ma ma ma liggéey ñu ñu jël ma comme inspecteur euh, parce que am na euh, am naa compétence bi mën naa surveiller ñi jàngale ci arab bi mën naa communiqué anglais en français aussi mën naa ko mais du eh, loo xam ne Eh, lu ma ci mëna wax sama soxla mun naa ko léegi nag donc su fekkee né ma ngi lancé euh, état bi appel ñu jël ñu jël ñu ci lolu dal agent de santé communautaire. mais depuis 2014 ma ngi maa ngi foofu mais ak conditions yi ni mu demee satisfaire ma daal ci samay besoin ndax ay pourcentage lañ lay defal. mais yow yaa ngi liggéey. foofu la nekk ci la fay boobu. démé wu non non par pourcentage par 10 euh, chaque fin du mois parfois parfois nga am tuuti parfois doo am dara. no bi ñoom ñoo association association pour le développement de Diaorékouta moom moo moom moo recruter ay ay kii ay agent di leen fay. yo demandé naa pour ñu defal wutal ma salaire bu xaw ba kii tuuti mais ba léegi xam nga association yi doo doonoon ne toujours la ñu am xaalis pour mën a pour mën a fay kii dañoo bëggoon rek. ñun état reconnaître ñu dugal ñu en waaw reconnaître ñu dugal ñu fonction publique ñu mën a nekk dans de bonnes conditions dans de très bonnes conditions